ordinateur Diatta Mbour usine technique Tony Junior usine technique moom mooy borom ngeen bulu sol li Tony moom mooy borom ngeen bulu bulali ordinateur Diatta Mbour ci ginnaaw Docteur Diatta Tony Junior usine technique Ngoundiane mbëru Fallou Gala Sène ari tàngi waag ñoom de arbitre jox na usine technique avertissement jox Tony avertissement beneen ko bi si ginnaaw ordinateur Diatta Mbour kenn ku ne am na benn avertissement ñaari combat yaa ngi noonu technique Tony Junior attention Usine technique jël na Tony Junior Usine technique daan na Tony Usine technique daan na Tony Junior de